góorgóorlu itam ak alxuraan bi ci jàngal boo demee dana ne yëngu suñu borom yëngu borom day wax suñu borom. حي على الصلاة اجعل القرآن صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله Yeah.

وإذا رأوا الجنة ويوم فقروا إليها قل ما إلا الذين يستحيون الجنة والله خير الله أكبر الله

وإلى الجبال فصفت ولدى الحرب فصفحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم من غير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر إنا إلينا إياهم ثم من علينا حسابا الله أكبر

Cheikh ah, Cheikh waa ñoo ngi rafetlu si lii quoi gis nañu mesure yëpp jël na ko mesure barrière yëpp jël nañ ko alhamdulilah quoi parce que am na distance gis na ay à peu près un ku nekk am nga jël nga sa distance te raxasu nga booy dugg raxasu nga quoi ñoo ngi sant yàlla alhamdulilah quoi waaw d' accord naa si bilaay d' accord naa waaw li ñuy conseil nit ñi mooy ku nekk rek booy ñëw rek parce que ku nekk yaay sama ko bopp quoi xam nga feebar fu mu toll xam ku nekk na jël sa distance alhamdulilah loolu rek lay wax quoi. man la Waly Sène waaw taalibe Sëñ Fallou. waaw bëgg yonent bi lool waaw may rafetlu julli jumaa gi vraiment di ci sant yàlla ndax ay jullit leen nun moom dunu nu mën a nangu mukk kenn du nu xañ sunu diine wala sunu julli ñuy sant yàlla nag tey julli ci yonent bi tey ñaan yàlla nag teggal nu mbas mi ci nu mu gën a gaaw ban mën a dellu ci sunu activité ndax julli gi moom war nañ koo defe comme nañ ko daan defe ndax jullit julli mbokkam tey julli warul daw moromam julli itam daal mais fi mu toll nii ñu ngi julli kenn mënta dend ak sa moroom boo feebaree kenn du la sees yi boo amee nag ku wàññeeku yi tamit naka kasaalika dan lay daw te loolu bokkul ci rolu julli julli day solidarité julli day dimmili moromam yal na nu yàlla defal tawfeex ak tànciir yàlla teg ñu saatal mustaqim waaye daal lii daal moom yàlla na ko fi yàlla tegg ci àdduna bi yëpp yàlla musal nu nag ci noonu lislaam yi waaw yal na nu yàlla musal ci noonu leen islaam yeeg pexe noon yi yal na nu yàlla def ay jullit àqandaal salaamatan ta doomu yaa salaam. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax di nuyu yéen ñëpp waaw di sant yàlla bu baax baax ci liggéey bi liggéey bi wax dëgg am na solo trop ndax euh, liggéey bi depuis ñu ko joxee léegi ban ubbee jumaa ba léegi aju bu jot ñu ngi fi xëy waaye wax dëgg yàlla mën naa ne organisation bu mel nii mën naa ne ñu ngi fi doo gis ba waaye léegi te xam naa ne ñëpp xam na li ko war muy mbas mi waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax ba dee lépp liñ fi doon séentu ci maanam mu jaar yoon rek suñu borom dimbali nañ ci mu jaar eh, fi dugg di nga raxas ba set dinañ la jox sel nga dugg ci biir ñu def ko ak rang depuis soo ba léegi 10 heures soo ba léegi ñu ngi fi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax gi waaw ñu sant yëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax organisation bi jaar na yoon wax dëgg yàlla ndax kenn ku nekk may nga sa morom lu mot distance ñaari mètre loolu moom wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko bu baax te kenn ku nekk bi ngay dugg jox nañ la nga raxasu raxasoo sel nga dugg ci biir ñu jox la sel nga raxasu waaw moom daa wax dëgg yàlla moom jaar na yoon jaar na yoon daal na jumaa yëpp def noonu defe naa bu ñu ko defee kenn ku nekk ñibbi sa kër yaakaar naa jàmm rek mooy am quoi incha allahu rabbi waaw jàmm mooy am waaw yal na yàlla boo def jàmm nag ñu fi ñaan yëpp yal na ko yàlla nangu réew mi yàlla na fi yàlla dàq feebar bi fi nekk yal na ko fi yàlla jëlee ñaan rek moo ko fi mën a jëlee yal na ko fi yàlla jëlee ci barke Borom Tuubaa. baax na sëriñ bi ñu jullee ci yonent bi salallaahu alayhi wa salaam gërëm suñu ñaari waajur di san sëriñ Touba ak mboolem kilifa diine yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla wéral leen yàggal leen suñu kanam te di woy ndigal rek ndigal li moom mooy li ñu président bi wax ñu di ko def ndax sunu jàmm rek la ñu bëggal te di ko ñaanal ma yàgg fi du ma nag du ma politicien du dara. mais damay ñaan yàlla moom mu yàggal ko fi waaw mu yàggal ko fi ba li mu bëgg mu am ko daal waaw di ñaanal jullit yi nga xam ne ñun ñoo fi nekk ñun ñëpp yàlla wéral ñu ñu juboo nekk benn parce que juboo rek moo am solo ak te jàmm leen rek moo am solo te Sénégal gi jàmm ko sos te ñun ñu fi nekk jàmm te xale yi si ñëw it nañuy roy ci ñun dañuy ñaan yàlla tamit yéen ñu yore télévision yi yàlla yëgal leen sunu kanam wéral leen te barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa